xam ngeen ni mooy bisu sëñ Abdul Xaadir kan mooy sëñ Abdul Xaadir doom la ci Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ak soxna Aminata Kanni Bousso mu ngi gane àdduna ci bis bii taxaw tey di ñetti fan ci muharram muy weeru tamxarit di ndorteel at mi yàlla dogal mu gane àdduna bis bi gën ci bis yi di bisu ajjuma kan mooy sëñ Abdul Xaadir mu ngi feeñ ci 20 novembre 1914 mu ngi gane àdduna ci njaareem al buqatul mubaraka mu ngi jaanee àdduna ci ndaam daaru alimul xabir waaye booba mu nga fekk Serigne Touba njaareem ci al buqatul mubaraka ñu yëgal ko xibaar bi mu yebal euh, jàmbaar ja yebal rakkam ja yebal murid saadix ba yebal ka nga xam ni gërëm na ko muy maam Thierno borom daarul mooti ngir mu dem ndaam njir ñu tànnali ko aw tur mu ni ko diir bi ngay dem nag di ko tànnali aw tur ba bi ngay dëppaat di ñëw ci kër gi mën ngaa diibal yoon wi mën nga koo yeexal ndax sunu borom dogal na ci gan gi ma am yow mi joxe ji tur wi ku la fi gis yàlla jéggal na ko koo fi gis yàlla jéggal na ko te aw yoon ku ko sóobu sëriñ Modou Faye ñett la mën a dal da ngay dabe wala ñu dab la wala nga daje da ngay dab kenn ci yoon wi wala kenn dab la ci yoon wi wala nga dajee kenn ci yoon wi cheikhul xaddim ni ko ci dara darajey ki ma am tey siñ Abdul Xaadir nga war a joxe ji tur wi koo fi dajel jéggal nañ ko koo fi dab jéggal nañ ko ku la fi dab jéggal nañ ko loolu kon bisam buñ koy màggal ku fi taxaw it da ngay am yaqin ni jéggal nañu la ñu taxaw tey kon ci Touba ngir fàttaliku jàmbaar jooju liñ ciy jàpp nag mooy ñu ngi fàttaliku murid sadiq sëñ Abdul Xaadir ñu ngi fàttaliku aalimu kulli fannin borom xam-xam boo xam ni fànn yëpp la beek ñu ngi fàttaliku borom xam-xam boo xam da daan jëfandikoo xam-xamam di ko jëfe teg jëmmam ci istiqaama ci siraatal mustaqim nu ngi fàttaliku sunni ku dunde woon sunna nu ngi fàttaliku ku njaxlaf ci jaamu yàlla ku nuru sëriñ Tuubaa ci melo ci doxin ci doxalin ci jëmm ci wax ci bëgg yàlla ci fonk waxtu wi nu ngi fàttaliku koo xam ni diir bi mu fi nekk ci xilaafa gi yàggul waaye liggéeyal na sëriñ Tuubaa lu rëy rëy rëy muy fukki ak benn waaye diir bi mu fi nekk ci imaama gi mat na ñaar fukki at ak ñaar muy diggante 1968 ba 1990 jiite na ci al juma ak ñaar téeméer ak ñeent fukk ak ñett 1243 vendredi jëmm jooju sëñ Abdul Xaadir jëmm joo xam ni bu déggee nodd daana wax ni jullit xaqan bu déggee nodd dafa war a teewlu nodd gi comme ku nu jël paaka teg ko ci putam di ko rend ni muy tiite ni la war a tiite bu déggee baatu yàlla jub mu daan wax ni jullit akkan bu déggee nodd noonu la war a teewloo waaye bu nodd gi daanoo ba muy wuy ji julli dafa war a mel ni kuñ ni ko sa kër a ngi lakk sa njaboot nekk ci biir ak sa alal na muy gaawee daw di leen wàllu ji la war a wuy waxtu yàlla wi kon sëñ Abdul Xaadir dafa am alaaxa bu mag bu mu am ak asalaat julli mu nekkoon imaamu aima yi imaam yëpp moo nekkoon seen njiit moom sëñ Abdul Xaadir yàlla defal ko tawféex ku mu jiite julli yàlla jéggal la ku mu jiite julli yàlla jéggal la am na ku ni ko dégg naa ñu ni koo jiite julli yàlla jéggal ko mu ni ak ku ma jiite julli ku mu jiite julli kon kooku mooy sëñ Abdul Xaadir moo daan tamit siña yi ñu nangu ko loolu maa ngi ko jëlee ci bàyyaat ma deer mu ngi dëkk fii ci dëkk bu ñuy wax njamb faal ci wetu Louga yoon wi jëm pootu sëriñ bu mag la bokk ci tariqa tariqa Cheikh Ahmadou Tidiane yi maandu na ragal na yàlla fajkatu aajo la dañ koy rang yàlla dafa dogal mu baax lu baax fu mu nekk ñor ko moo ma nettali lii ci làmmeñam ni ma fa la neex sax nga koo nettali ndax maa ko dund nee na 1958 dafa nekkoon ndar bi mu nekkee ndar mu tëdd fa guddi gént sunu boroom mel ni ku ko yóbba màkkatal mu karrama nee na waxtu tàkkusaan la gis ci gént gi mu nekk ko màkka mu bàyyi ko nii ci penk bi di ñëw nee bi muy ñëw mu séen ci peggam ci càmmooyam jëmm ju tuuti mu ngi sol jàllaabe bu bëla sol dal marakis yu mboq solum laafa kaala woo kaala gu xonq mbooloo mu bari topp ci ginnaawam bàyyi yaat ma nee na ci gént gi ma dawal sama bët gis mbooloo mi ko topp ci màkka ma laajte ni kee ku mu doon nee na am ku ni ma kële Cheikh Abdoul Khadir Mbacke la tudd kële doomi Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke ca Sénégal nee na ma ni ah mooy kan ñu ni ma jëmm jële ngay gis saabu yàlla nar a nangu ñaani bu jullit yëpp ñaanee ba àggal moom moo koy signé yàlla door koo nangu bàyyi yaat ma dee nee na loolu sama nopp moo ma ko may ci gént nee na ma yeewu 1958 ca Ndar fi ma ko génte tiit lool ma nettali ko samay xarit ñi ma ko nettali woon ku ñuy wax Moussa Diop bokk na ci yàlla dogal 1978 ñaar fukki at après bi ONCAD amee problème ma ñëw Mbàkke seet si Moussa Diop mu ni ma gént ga nga ma nettali woon tey man ngaa dem ziyaara ji sang bi si Abdul Xaadir abal ma daamaram nee na ma jël daamar ji ñëw fii Touba fekk ko fi nee na bi ma ñëwee ci këram gii ci gede dama dugg ci biir kees gi fekk ko mu sol nu mel ni la mu soloon mu bëla ak dàllu maraakiis yu mbokk kaalawu kaalaam ko xonk googu toog ci ëtt bi waxtu tàkkusaan ma raam ba àgg nuyoog moom ñu saafonte ma wax ko dama amoon yitte ñaan ndigal ngir nettali la ak gént mu ni ma bisimilah ma wax ko bay bëgg a àggal ni ko dañ maa wax ci yow ni mu ni ma foofu jor naa yem li ci des jarta àggale tàllalal ñu ñaanal la daal di ndax dem nga màkka ma ni ko déedéet mu ni waaw baax na incha allah dégg nañ nee na juróom ñaari at lañ ci teg 1985 maa ngi moom ñu dajewaat màkka waxtu tàkkusaan ma gisaat ko ci melo woowu kon day wane ni kii moo daan signé pour yàlla nangu ñaan yi jëmm la joo xam ne tam waa kër sëñ Tuubaa gépp a ko fonk ñëpp ku bokkal sëriñ Touba rek soxla woon nga ñaanam ñoom ñëpp diggante sëñ Modou Moustapha ba ci sëñ Mouhamadul Mourtada ngir nuru ga sëriñ Touba ngir istiqaama ja ngir sàmm ga ngir ragal ga yàlla ngir bëggam ga njub moo tax ñëpp doon gis ci moom sëriñ Touba. Euh, gis ngeen alaaxa bi mu amoon ak Cheikh Mouhamadou Lamine Baara borom guy min seereel na ko seere bu rafet nee na nitu yàlla yi daf ci am ñoo xam ni fi dal képp la leen yàlla jox waaye joxu leen ay bal yuñ ci def am ñu am ay bal te amuñu fital am ñu am balak fital waaye amuñu ndigalu tiire am ci nag ñu am balak fital am ndigalu tiire te duñu luppe mukk ci nguuru yàlla luñ diir jam ko ni sëñ Baara noonu la mel digganteem ak sëñ Abdoul Ahad keroog bi muy dem Màkka 1976 euh, yàlla dogal na sëñ Abdoul Ahad mii nga xam ni moo doon sëriñ Touba oto la jël yeb ci njaboot gi boole ci alaaji Baara Fadilu seen doom ja di doomi sëñ Fàllu ni ko daa am lu ma lay sant man sëñ Abdoul sëñ Abdul Xaadir mii damaa ñor ñor goo xam ni su ma ko mënoon maay demal sama bopp màkka di ko say ma bëgg nag fitna ga am màkka ca tawaaf ba bu mu ko jige yow nag laa dénk wàllu kaaraangeem nag ma ko topp tool ba dara bu ko xoos boo ko topp tool ba dara xoosu ko ba dellu si li nga bëgg dinaa ko ñaan Serigne Touba te dina ma ko defal ci yow sëriñ Alaaji Baara nee na àgg nañ ci bi sëñ Abdul Xaadir di tawaaf dama ko boot di wër ak moom kon noonu la demee woon ak moom su digganteem ak Serigne Saliou dégg naa Serigne Abdou Samad son yi mu wax ni sëñ Abdoul moom la yónni ni ko demal ci Serigne Saliou nga ne ko tay la altine waaye alxamis dama koo bëgg a nuy si nee na ma fekk sëñ Saliou mu mel ni sedd bi da koo xaw a sonnal lool ba mu banku ci lal bi ba ma ko waxee nee na mu daal ni ñokket ni kon alhamdulilah xëy na kon fii ak alxamis danaa fi wér pëlëg ndax Cheikh Abdoul Khadre ko bëgg boo demee itam nee ko na ma ñaanal nee bi mu ñëwee wax ko ko dani incha allahu tey ci fajar dinaa ko defaalal ay dog noonu lañ demee woon ñoom ñaar noonu la demee kër sëriñ son yi waaye kilifa gu ma sa wàcc ci liggéey mooy taxaw taxawu la jullee la nga am yaakaar xam ni daa mel ni sëriñ Tuubaa moo la taxawu jëmm la joo xam ni ah dundam diggante 1914 la ba 1990 waaye yar na ñëpp ci topp waxtu julli yar na ñëpp ci fonk waxtu julli gis ngeen julli gi mu jub dem di julli yàlla dogal muy taw mu xuus ci taw bi dem ñu ne ko mbàkke de taw beenu jaaxaloon mu ni xuus ci am ndox dem julli ji moo ma gënal nekk ci bàmmeel muy tàkk tàkk kon kooku euh, ku ragal yàlla la ñuy fàttaliku ku nuru sëñ Tuubaa ci melo la ñuy fàttaliku ku bëgg seexul xadiim ku bëgg jullit ñi ñaanal leen boo demee ci irzul muslimin ñaan na fa xeetu ñaan yëpp luy jariñ ab jullit kon jëmm la joo xam ni Sénégal mënu koo fàtte ñëpp a war a roy ci moom ñaanal ko yàlla dolli ko ay leeram te nu ci barkeem